بسم الله تيجي لك أي جينا كاي دفع بعثي في فان كمسن بوكسن خالص شعب مو نيو دفسل لي تيجي لك أي جينا كاي تاني لزي دي تريز نوع تشات من 2024 من خامنة مم لجينا كبوكنا كده خامنة مم موج جينا فس دي دالت بس كنا خامنة مم مايا كاي بري من خامنة مم لجينا كموي سنغال تهنا دال كن تلو تول دار أمول بن أكتيفيتي بو خامنة نيجي دال باين عن كحل دكتا بس كنا خامنة مم بنيو دوم الواي واي لغو لو برجو بالنيا نيوم نيوم نيوم دين جل بوله كوك تبس كي مايا عمل كنا خامنة ورنا كوي عمل 23 نوع بنا خامنة كورس بنا خامنة نيوم كوي عمل سيبير لغو لو مي كورس بو خامنة كورس course bu ñoŋ lay doon wala boog course bu am am solo lay doon ndax fépp foo xam ne rek war nañ faa jaar yëgle ko rek foofee fépp daal nooy na ner en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo war a wàll ci bis boobu nga xam ne moom lañ war a amal le 23 juin ñoom ñoo ñee ñëpp daal kenn ku ne daal dégtal nañ la ko ñoom wàllu ko ñan la ñuy dawal grand prix bi en tout cas poulain de deux ans yi ñoom lañ koy tegal mille six cent cinquante mètres poulain de deux ans yi daal at mi daal gis nañ seen bopp bu baax a baax ndax daal gis nañ ne daal bi mooy seen ñetteelu grand prix yi nga xam ne ñi ngi leen koy tëggal ñoom poulain de deux ans yi doon terrain grand prix bariwul waaye ñoom daal dal seeni grand prix bari na ndax ñetti grand prix ci mennum at dal fa la grand prix dal mën a en tout cas li wér te wóor moom ñoom da naka bu fekkante ni bi da nga génnee open génnee li nga xam ñom ñoom ñoo di kiran ñom képp ñoom ñoo fi daw grand prix wa groupe D bi ñoom ñëpp ñi nga do di jooyoo yaay yooyu sama nday ndax dal ñom nee dañu bëggo ñu teggal leur grand prix way déggul ben yoon fo xam teggal nañ dëgg ñom noné ñu jooyee non la ñi nga xam ñom ñoom di groupe C bi jooyee gannaaw bi nga xam ne édition moom moo nekk ci raw gaddu ko mom mo jité première place bi mom momé wax nañ ne ñoom ñooñee gannaaw prix spécial amul benn yoon boo xam ne tëggal nañ leen grand prix plein de trois ans yi ñoom ñooñu nga xam ne daanaka Louga li cëpp ñoom lañ ko daan tegal ñoom ñooñu daal ñoom daal nee nañ daal gisuñu seen bopp ci nar lañ koy tegal bu ko defee ñoom plein de trois ans yi muy del seen premier grand prix waaye dañ leen a njóoyi ndax kenn tëggalu leen ko ñu ngi ko tëggal plein de deux ans yi spécial yi nga xam ne ñoom moom moo waraan ci dugaloo ndax prix yooyee danañ ko yokk en tout cas li wér moom course moom fii mu toll ci cappaandaw gi fépp foo ne tëgg nga rek boo bëggee fas yi ñëw da nga daal di mën a xaalis bu bari bu ko defee fas yooyu daal mën a néew participer ji ndax ñaari góor yi danañu bari en tout cas loolu moom bu baree dana jaaxal ñu baree bari ndax daal ñaari góor yi ñu ngi seen préparation yoo xam ne préparation yi mucc ayib lay nga war a dem grand prix Godolphin Godolphin buñ ca jógee daal am nañ jort ne ba ca topp daal grand prix chef d'état la wala budul ba ca topp di ba ca moo tax daal ñu yaakaar ne daal génn ñaari góor yi daal boo moytul daal dana soxe ndax daal fi nga xam ne fi la Louga tëggee kursam moo tax ñu njort ne daal crack adulte yi ñi ci bare bari wala ñi ci ëpp yaakaar daal kenn du ca dem course du terrain bu ndaw course Louga am na ci fas xam ne fa lañ war a mën a dem li jënt ci seen i parrainage fii lañ yabandi bàyyi bàyyi bonne continuation à vous à vous Dakar. le 9 juin ci hippodrome Alaaji Njaw ma Kotu Joob Grand Prix CREN troisième édition 19 heures 2 minutes kan lañ dàq mu génn ki nga xamante ni mooy Moubarak Cheikh Wade jërëjëf Baye Cheikh Mbaye Moubarak moo génn waaye ki nga xamante ne moo di Arafat si kii mu na ko en deuxième position. station Lat Fatim remplacé na ki nga xam ne moo di Moubarak Baye Mar Lat Fatim lim def gëj na koo de. gëj na koo def Lat Fatim. lii mu def gëj na koo def ndax mu barak dono bi box yi mu ni ku demul maa ngi dem Arafat ni ko dama fi bàyyi Lat Fatim ni leen gaawal leen seeni i tànk li ngeen di def daa yéex Cheikh Wade tey loolu Baye seex mbay ki nga xam ne moo génn moo di Lat Fatim Anta Ndiaye Lat Fatim Anta Ndiaye moo génn doomu Siaman force la deuxième position nekk ki nga xam ne moo di Moubarak troisième position nekk ki nga xamante ni moo di Arafat bu Njibi Ndiaye

ba léegi Lat Fatim moo toog trois troisième position bi deuxième position Moubarak attention Baye Cheikh Moubarak mbaa du def ni defoon keroog. Cheikh Wade Auguste li muy def mbaa dina ko jig. ah. Cheikh Wade Moubarak li muy bëgg def mbaa dina ko jig. mbaa dina ko jig min na loolu. Aminou ma toog bi mu toog ci ginnaaw nga xamante ni daanaka moo jiital fas yi mbaa dina ko jig. kooku min na loolu Baye Cheikh. deuxième position Moubarak Babacar Mar troisième position Arafat Auguste mooy kan moo jiital li nga xam ne moo di deuxième peloton bi waaye dañuy jàpp ndax 2650 mètres la ñuy daw bu ñuy ñëwee dañuy dellu ñu ngi doon ci 200 mètres. Cheikh Wade léegi dawa jot dàq nañu El Capo mu ñëw xeex seeg koo gis ñu dàq ki nga xamante ni mooy Lat Fatim mu ñëw xeex seeg mu barak ñu dàq ki nga xamante ni mooy Tawfeex mu ñëw xeex seeg ndam li Arafat la ñu dàq mu dem ànd ak mu barak da leen di sàcc mu barak da leen di sàcc da leen a bëgg a sàcc da leen a bëgg a sàcc. alhamdulilah mu a bëgg sàcc Amin Ouma jaar na ci arage bi. waaye ki nga xamante ni moo génn moo di Arafat bu Jibi Ndiaye deuxième position nekk Moubarak troisième position nekk Lat Fatim quatrième position nekk Auguste sixième position nekk ki nga xamante ni moo di Tawfeex dawal nañ Tawfeex Baye Cheikh dawal nañ Auguste gaa yëpp dawal doon nañ leen Arafat moo génn Baye Cheikh Arafat moo génn deuxième position Moubarak troisième position Auguste quatrième position Lat Fatim. Tawfeex ngay ñëw Cheikh Wade Tawfeex ngay ñëw Cheikh tawféex a ngay ñëw tawféex mubarak arafat tawféex mubarak arafat tawféex mubarak arafat mbaa surprise du am tawféex génn na tawféex seex Wade oh ndam li ñëw na ndam li ñëw na Aminou maa ñëw na ndam li ñëw na 200 mètres bu métti nga dara gis seex Wade sa mètres bi dina métti diggante tawféex ak ki nga xam ne moo di ndam li ak ki nga xamante ne si moo di Lat ma ak Auguste ndeysaan tawféex ndam li tawféex ndam li Tawfekh ndam Babacar Mar 200 mètres bi dina metti ci diggante Tawfekh ak ndam 200 mètres dina metti. non non Tawfekh mom Tawfekh moom ci benn affaire la ko mëna amé ñu dem ba am 1000 mètres 1500 mètres xex tambali Tawfekh mom fu xex tambalé aw ayé ko gënal lu mën am day day gagné course. Tawfekh dafa mëna xex xeex. ci ngeen Tawfekh. gënal na Tawfekh gënal na Tawfekh gënal na Tawfekh gënal na Tawfekh raw na. tawfeex raw na tawfeex raw na tawfeex raw na Amar Ba war a wat si na Masir Anta Ndiaye oh, Lat Fatim Anta Ndiaye doo am gàcce ku ñëw ak ku ñëwul doo oh. am gàcce ku ñëw ak ku ñëwul nga boole leen def ci buum kenn du Amar Ba Bakar Mar Bakar tawal ci kaw Bakar jëlal soo baawo jëlal soo baawo Masir Anta Ndiaye ak Lat Fatim Anta Ndiaye dootoo jubilé waaye dañ lay jubileel Oh!